maa ngi tudd Mouhamad Seck di oustaz jàngale alquran fii ci Sandiara ci daaray Cheikhina Alhaji Daouda Camara rahmatullahi alayhi di ñëw yenn rek tey ci waxtaan nag yéen ci wàllu daara ndax kat daara nekk na loo xam ne lu mat a xel la waaye lu am solo la ndax yàlla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala moo njëkk fondement daara ci naka la ko fondation yi mooy dafa jël alquran jaarle ko ci jibril mu war koo indil kan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jibril wala nekk lan war a nekk jàngalekat ci yonent bi moom la benn ñaankat di wax di ñaan yàlla ba daan ko ad'uka ad'uka ya rabbi bil kabiri murtadiyan jazila juudika yaa jawaadu yallaahu waaye muqaddiman fadilan saada muallimahu jibril mi nga xam ne moo doon jàngal yonent bi alquran jooju ci jàngal gi mu jàngal yonantu bi ci la mujj nekkee sang di malaaka yi kon nga gis ne nit dina la jàngal waaye ci jàngal gi mu lay jàngal sax ci lay mujj nekkee ak sang kon moom alquran moom nag ñu war cee waxtaan wala boog ci moom mi maanaam daara ndax daara lu muy firi mooy dara mooy loo xam ne boo ci nekkee boo ci génnee rek mujj doon dara kon loolu xéwal la goo xamante ni ñoo ngi cee ñaax ñépp rek ñu jéem a bokk ci dara jooj noonu waaye moom daara nag ay mbiram yombut ndax lépp tumuranke la lépp jafe-jafe la lépp ay mettit la dara yombut ci waaye comme li ma wax léegi rek boo ci génnee rek ñëpp xam ni champion taxaw na ndax alquran mi ñuy jàng yàlla mi ko wàccee moo njëkk xam alquran lan la ndax yàlla wax na ci suuratul muzammil yonent bi ne ko inna sa nulqi alayka qawlan saqila man maa la jox alquran joo xam ne dafa diis lool moo tax doomu aadama yàlla da koo jox lu jafe mooy alquran gis nga alquran bari na loo xam ne bu ko dékk woon wàcc ci suuf kenn mënu ci dara waye doomu adama moom la yàlla jaglel mu atan ko gis xale bu ndaw bo xamne ne amagul sax 10 ans ñu def ci mom kaamilu alquran mais kamil boko teyé téyee rek nga xamne poids bi yamut ak len boko ubbé la nek ci bir ci ay secret ak ay mbot kimtanu yàlla motax yàlla wax la anzalna hadha alquran ala jabalin la raaytahu khashi'an mutasaddian min xashiyatillah yàlla nee alquran ji fu ma jëlone wacce ko ci ay doj ni kon da nga gis doj yi dañuy mujj toj tasaro ngir lan min xashiyatillah kon doomu aadama nag bu ko yàlla joxee lu tollu noonu loo loo xam ne doj sax montagne attanu ko kon loolu sant yàlla ci képp kuy jullit nga jéem a góorlu pour lan boo ko mëntu jàng nga fexe sa doom jàng alxuraan ndax sax jamono bi ñu toll am na benn seetlu bu ma def ba ni ba nitu français yi sax léegi dañoo commencé comprendre ne xale boo ko njëkkee jox alquran bu jógee école ba mu dugg ma fay raw moo tax léegi sax dañ koy commencé di ko def politique mooy xale bu ñu am bu ndaw balaa ñu koy dugal école dañ koy def dañ koy lan dugal ci daara ñu baaloo ko siinloo ko kon loolu secret la boo xam ne alquran am alquran am na ko ndax képp koo xam ne jaar nga ci daara ba génn ci boo duggee école boo fa rawut war nañoo war nañoo seetaat say mbir képp koo xam ne dugg nga ci daara ba jógee fa boo duggee ci école yi wax ma la mais yow kenn du la téye te loolu mbir la ci mbiru alquran alquran du jitu ci bop mup bop borom bobu du nek manam du am résultat munta nek kon di wax ne dara nak ah, comme nima ko waxe won legi jafena lol waye nak sante yalla bo ci gene rek don dara ndax ah, mag ñu bax ñep ci lañ jaar waye biñu paré ñom luñ luñ def moy dañoo taxawal ay fond ay fondation ki tabax fi dara ki dem jollof dafa dara ki dem fele pour lan pour meuna a dimbale yi ba donte jamono bi am na ñu koy xeex nag ñuy ñoo xam ne dañoo jóg pour wàccee daara waaye mënuñ ci dara la xamulu tax yuriduuna li yutfiu nuurallahi bi afwaahim waaye wallahu mutimmu nuurahu walaw karihal kaafiruun donte yéeféeri dañ koo bañ donte ñu ko sib dañ koo sib mënuñ ci dara parce que yàllaa ko téyeel boppam inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafidun alquran yàlla nee na man maa ko wàccee waaye man maa koy téyal sama bopp amul xamante nii mun ngaa fexe ba gàllankoor alquran wala nga fexe ba suufeel alquran muntu nekk ci kaw suuf ndax depuis yonante bi ba léegi nii depuis yonante bi ba léegi ñi ngi jéem a xeex alquran ndax Muzaylimatul Kazzab doon na ko jéem def ak keneen ak keneen ak keneen waaye kenn mënu ci dara kon alquran dafiy des ku mu neex moo xam ku gëm yàlla nga wala gëmoo yàlla dafiy des kenn mënu ci dara parce que yàlla moom moom ñëpp moom alquran ne man maa ko fiy wàccee maa waye limi muy alquran nonu nonu lay sàmmee ñoñ alquran kon lolu sant yàlla di wax ne lolu mo doon dal tém bi nga xamné indi won nañ ko ci walu alquran lépp lu ci jub ñu xamné ci yàlla la waye lu ci dëng la ñu xamné ci ñun ñi la ak sunu ñak ñàkk xam-xam ak suñu ñak fasaha in uridu illa al islaaha ma wa ma tawfiqi illa billah wa wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh اقرأ باسم ربك الذي خلق